Moi, je m'appelle Samba Dieng. Je suis le président de l'association pour la défense des intérêts de la cité des HLM Angle Mousse. Voilà, maa ngi leen di remercier nag vous d'être venu pour porter notre voix loin d'ici. Loolu maa ngi leen ci gërëm maa ngi leen ci sant. Nous sommes vraiment vraiment nous sommes à bout. Sonn nañu sonn nañu sonn nañu vraiment sonn nañu. On a un problème avec le terre. Fii yëpp bouché na, il paraît que ñoom ñoo tabax ci kaw kii bi. Ils veulent nous prendre le terrain. actuellement boo maraîcher on se demande ndegam ma ngi exister ou non fii la oto yi jëm Mbour ak Kees fii mooy seen tête de pont fëgg jaay bi ci biir kër la léegi donc ak bon avec un marché avec tout ce que cela comporte actuellement bon les inondations vous avez vu actuellement tout est bouché rien ne va HLM bi yëpp nous vraiment envahis par les moustiques par l'eau nauséabonde des fosses septiques fay nañ ci xaalis def nañu lu nekk woon nañu ONAS wax nañu maire on a écrit au maire au commissaire le commissaire nous a bien reçu le maire nous a reçu mais le préfet on le voit pas on personne nous sommes nag des républicains xale yi jógoon nañ fi pour dem baara ji on a refusé ça. bëgg a réintégrer ñoom maa ngi tudd Ngoné Angélique Seck dëkk HLM Angle Mousse a mbokk yi nañu yi nañu nekk benn maa ngi tudd Ngoné Angélique Seck. waaw dëkk HLM Angle Mousse villa numéro 30 69. mais que tout le ñu yàq bu euh, ñun waa HLM Angle Mousse. ñun dañu dëkk ci angle bi jàkkaarloog fëgg jaay bi muy friperie bi nu jànkonte ay tolof tolof yu metti muy guddi muy bëccëg. friperie bi léegi balaa nuy wàcc ay vingt deux heures yi nga xamante ni fajar bi quatre heures du matin dañuy commencé wuyu donc de ce fait am problème même pour se reposer amul samedi amul dimanche on n'a pas de week ci biir HLM environnement bi dafa mel yàlla di ci mën ay noo def exprès ñoo dëkk ci marché parce que léegi friperie bi bu njëkk da naan laal mais laaleetuñu dañ defoon ay tablier mais léegi defatuñ ko léegi dañu bàyyi mbaar yi lu nekk nga fi daw na drogue bi daf fiy circulé alcool bi daf fiy circulé prostitution daf fiy circulé et j'en euh, je suis témoin de ça gis naa ko et je l'assume ku ma woo tey ma wax la fan la mbaar bi du nu wàcc bu guddee da nga leen di gis ñoom ñëpp nu bankoloo nu ngi yoxe alcool nu ngi yoxe cigare nu ngi yoxe leneen ak leneen di donc amatuñu sécurité nu dellu si ci minibus yi dañu ñëw gaare sa buntu kër boo leen waxee ne la ni moom moo trottoir te ils naa ont pas droit non je m'appelle Amadou Niagne Seck euh, j'habite les Donc ce rencontre, a été initié par euh, l'ADICAM euh, parce que nous avons remarqué ces temps-ci qu'il y a une certaine accélération des travaux du terre, notamment au niveau de ce qu'on pourrait appeler euh, cette station de guichet. Euh, le juillet passé, le matin très tôt, ils sont venus avec des bulldozers et des gendarmes comme des voleurs Et ils ont terrassé tous les arbres qui rongent la route, cette route Donc, euh, depuis longtemps, nous nous battons, pour que en fait, nos droits soient respectés. Parce que nous savons que aussi avec l'implantation de cette gare, il y aura comme corollaire tout un tas de préjudices qui va en fait impacter notre cité. En l'occurrence, le problème de la sécurité. le problème des, des, des, des ventes à l'étalage, le problème des gargoles. Il y aura aussi des taxis et des clandos qui vont aussi se garer pour transporter aussi les passagers qui vont descendre du terre. Euh, en effet, même au niveau du rond-point Colobar, vous voyez la configuration d'ensemble qu'il a là-bas, avec euh, tout ce qui est comme euh, friperie. Euh, et c'est le point de chute en fait de tous ceux qui viennent aussi de la gare Beau et qui, vont vers la gare Beau Donc la cité anglo est submergée de partout. À cela s'ajoute aussi le problème aussi du terre, parce que cette gare est construite en fait Euh, au-dessus euh, des canalisations principales euh, qui desservent en fait les eaux usées qui émanent des HLM Angle Mousse. C'est un préjudice. Il y a un préjudice sanitaire, il y a un préjudice environnemental, il y a un, il y a un préjudice sécuritaire. parce que qu'avec le flot de passagers qui va descendre ici, euh, notre quartier sera vraiment submergé et on craint pour notre avenir. Donc nous, avons en fait un titre foncier global. Dans le titre foncier, les terrains en font partie intégrante et qui sont des zones non édificantes. Mais c'est ce qui n'avait même pas de droit réel, qui habitait derrière l'autoroute. En fait, au niveau même de la station principale, du terre, la station centrale du terre, ces personnes la ont été dédommagées. On nous dit que nous, au niveau des HLM Angle Mousse, on n'est pas impacté par la terre. Parce que fii accès la boo xam ne vraiment bu ñu ko baaree woon une heure de temps ce que cela va nous sommes nous des républicains on a interdit aux toute manifestation ay takk lu xonq ak ay dem leen ci mbedd mi on a refusé ça on a interpellé l'autorité pour qu'il vienne nous dem dire qu'est-ce qui se passe lan moo xew ci teer bi lan moo bouché suñu koñ lan la bëgg bu fekkee ne même HLM dañ ko bëgg na ñu génne l'État est souverain et bu bëggee mu da ko bëgg ba ko jël mais waruñu ñu actuellement sérieusement nous sommes à bout sonnoon nañu bopp sonn yem sonnoon nañu bopp sonn yem environnement bi yàqu na terrain bi ñu ngi ko bëgg jël on ne sait pas ce qui se passe waa TER bu ñu leen wooyee ñun leen maire bu ñu wooyee maire mun a yëgul lu xew dem leen APIX keroog waa SONAS ONAS bu ñëwee dañ nañu ñoom mënuñoo wax parce que TER bi am na ay fu ñu fu ñu sakk n'est-ce am na lu ñu fatt loola tax ndox mënul dem ONAS li ñu fi ñëw ëpp na dix d'intervention zéro fépp a taa fépp a taa et ça vraiment et pour notre santé même avec les enfants vous voyez ce qui se passe sur le mais ñun suñu buntu ko ñun noo ko moom ku ci nekk am sa titre foncier te doo gis chef de quartier bu réagir doo gis monsieur le maire bu ñëw taxaw man dama dem sax bu xalaa ndax monsieur maire monsieur le maire ndax du ñu moo leen fi teg parce que ñoom seen langage sax dañ koy wax daan ne ni ñun amuñu affaire ak yéen maire bi nañu amal affaire mais maire monsieur le maire fa mu ne mu ngi nelaw ba yandu ba ñu noppaleku wuñu guddi noppaleku wuñu ba jëkk sukkoon bi ñun ñi noo ko xam lu ñuy dund ñun noo ko xam moo tax nag nu ngi ñaan yàlla nanu état bi jàppale sunu doom yi amuñu fu ñuy fooyee mais mu yëkkati sécurité bi nu setalaat ñun nu bu nu gisul ku nu jàppale nu defal sunu sécurité bu bopp mais fripeaux yi daf nu fat minibus yi c'est du seen taxawaay nan dem boo maraîcher c'est du transport c'est transport domaine transport yàgg sa nañu jàppale friperie bi na fi jógee je faisais partie de cette équipe moom terre bi kenn mënu ci dara nee neen nu mus nañu fi def fi benn point de presse terre bi daan nee mu neex ñu dina am mu naqari ñu dina am mais man gisuma man jusqu'à peu mënu ma la wax lu concret ñun lan la ñuy gagné ci terre bi ñun waa HLM Angle Mousse man nag personnellement parce que nee neen dina créer ay emploi terre bi ça fait combien d'années boucher bi bi boucher bi ñun l'année dernière on a vécu pire tous les deux jours nga fay privé mu ñëw déboucher la peut-être que cette année tane na léegi ñu ngi bëgg a jël terrain bi yi. nee naan affaire ru terre bi moo impacté ci canalisation. et c'est dangereux la waaw waaw loolu wax nañ ko ni dañ tabax ci kaw canal bi ñun daal dundatuñu. parce que ñun de ça fait 40 ans 2021 bi ñun suñu waa kër suñu famille ça fait 40 ans ñu fi dëkk mais 5 ans yi ni passé nii lu ñuy dund daal se n'est pas une vie bu ci mën a dimbali nag état bi mu jàppale. mais cette gare qui fait ah, face à notre cité. avec tout ce qui va s'en suivre comme débordement. Mais ça va impacter sur notre environnement de manière extraordinaire. Au lieu d'attendre que cela arrive, nous anticipons sur ça. On n'est pas aidé parce que nous avons une autorité, en l'occurrence le maire. qui est une compétence décentralisée et qui doit, qui, de, qui doit être en fait à équidistance entre l'État et nous. Une... Comment non, non, non, non, non. Quand on est allé le voir, il nous a dit, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le maire, tout ce qui se fait au niveau des HLM, il est au courant. Ça relève de sa compétence. Lapis, qui, est le maître d'ouvrage de cette terre, ne peut pas construire une gare sans qu'il y ait en fait l'aval de la mairie. Il y aura des retombées pour la mairie. Nous, ce qu'on demande, c'est la concertation, la collaboration, que notre cité soit prise en charge, et les habitants soient protégés. On a des retours des eaux usées. On a un problème sécuritaire de tout le temps Angoul Mousse a été comme un punching ball. Il avait les gardes Ndiagandiaï. On s'est battu avec eux, avec un lot de blessés. Quand l'autoroute a été construite, on a détruit le pont, on l'a dynamité. Toutes les maisons ont eu des débris de verre, des fenêtres qui ont volé en éclats, des murs qui sont cassés. Il y a eu un marché triangulaire avec tout son lot de banditisme de prostitution de drogue donc de tout le temps HLM Angle a été vraiment comme laissé pour on on dit basta maintenant on a on a on fait appel à l'autorité qui est l'État on lui dit de nous aider pour une vraiment hein, vraiment favorable à notre cause